moo tax ñu ànd ak moom li ñu daloon ci Ablaye Wade yërëm Macky sàll ànd ak moom te Ablaye Wade deful dara fan la ñu mujje góor gi baal ñu àq ñu ngi rëccu yee c'est la vérité Macky Sall deful dara mais ñi ñi borom lamine ñu rëy yi ko jege ñooy tax ñu jéppi Macky Sall après fu ñuy mujje Macky kat pourtant ku baax le mais Macky mi ngi liggéey barki alxuraan mi ngi liggéey Macky Sall mi ngi def li mu war a def mais ñi ko war a wax dëgg nañ ko wax dëgg injustice bi si ñoom la commencé bàyyi leen jaay doole di toroxal suñuy journalistes yi nga xamante ni ñooy nekk sur le terrain média yëpp ngeen war a yamale RTS ak ñeneen ñi ñi ñëpp nañ nekk benn parce que population bi moo leen tax a jóg information population bi moo leen tax a jóg qu'on dise la vérité c'est la vérité rien que la vérité yàlla moo bëgg kuy wax dëgg parce que ku ci nekk dinañ la laaj yow la nga doon wax oh mes enfants qui m'appellent ma lu ñu may doyee xaaral man avant